sëriñ ak borom kër yi yàlla na yàlla may ak ci suñu kàddu léegi. allo. maa ngi tudd Père Ngouda Sarr maay président commission sport bi man may papa xale yëpp ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di wax waa yarax yëpp ñu ngi wàcc suñu combat pour yarax yëpp benn drapo la aan moo ko moom benn doomu aan moo ko war a dem xeex yi xeex bu ñu ko waxee nag du xeex pour histoire mais xeex pour dem jëli ndam li indi ko xeexal yarax yëpp kon tey Moussa mën nañu wax du tànk yaraax yëpp lay yóbbu ak loxo yaraax ak bëtu yaraax yëpp waaw ñun amuñu benn combat bu spécial si ñun Moussa depuis mu jógee petit petite catégorie ba léegi benn préparation la ñu préparé mooy fi ñu teg suñu bët mooy ci roi des arènes bi la ñu teg suñu bët cest à ñoom ñi ngi wax mais ñun garga ñu woon bëree ak moom garga bu ñu waree bëree dafa yàgg war waruñu woon bëree année bii ñun am na ñeneen ñu tegoon suñu bët ñooñu ñoo nangul bëree ak Moussa ma wax la ñoom ah ñooñu ngay tudd ñëpp amu ci kenn koo xamante ne doxuñu sa combat ak Moussa Ndoye mais ñi mewuñu bëre ak moom moom ci bëre la def métier mënul toog di xaar mais bëgguñu woon bëre garga dañu bëggoon bëre ci kaw garga dafa bëre ak Boy Niang mu daan ko ñun moment bi muy wax lool bi muy bi ko Boy Niang daan dañu daan lagros bi mu daan suñu bët dañ ko tegoon si ñeneen mais ñooñu nanguwuñu bëre ak Moussa bu demee ba stade ba mu respecté ki muy bëri nawleem la dafa jël avance am entraîné comme moom te doomu yaraax la yaraax ñu la boot ci ginnaawam mu jox ko cër xam ni yaraax lay xeexal ak ñi nga xamante ne ñu ngi ci àdduna bi fu waa doomu yaraax nekk rek Moussa daf leen représenté moo tax yàkkamtiwuñu dara ci combat bi lu ko bëtam may rek fitam du ko xañ yàlla julli seenante bi sant suma ñaari waajur di bëggee sama doom la sama mag sama xarit Moussa Ndoye waaj nañ ko comme ni ñu ko liggéey na nag doole bu wóor kontaan na lu doy ja liggéey na xeex bi yokku na bëre bi te incha allah dimanche dañuy dem duma waaji daan ko ñu bisiwaat waaw combat bi moom xëy na su Garga Mbossé dëgalee boppam day gaaw bu dëgalu boppam nag Moussa Ndoye bañu si dara parce que am fu Moussa Ndoye jëm quoi kon amul lu muy yàkkamte mais soit dëgalee boppam moom du am minute saa du ma ko daan ko ñu ñibbi incha allah. maa ngi waa Yaraax ñëpp aussi di fi teewal Ahmed Deme di bépp mbëru Caaroy géej parce que tey Moussa dafa bokk si Caaroy parce que yaakaar Caaroy ak euh, Yaraax benn Babacar Mbeng mi nga xamni ci si nekku fi moo ñu yéene pour ñu ñëw taxawal ko taxaw buñ koy taxawal nak ah Moussa Moussa Ndoye ak conseil municipal Hann Belair Moussa Ndoy ak mairie Hann Belair Moussa Ndoy ak Babacar Mbeng c'est une longue histoire donc histoire bobu tay dañu déllu battu baatu si ngoy mboy wi rek parce que Moussa suñu Moussa la Moussa suñu champion la Moussa buñu commencé ba légui lépp li nga xam si daf koy def monsieur le maire mokay accompagner à conseil municipal bi ñu jàppale ko kon Moussa tay bu amé li yaraax yépp ñëw Hann Bel-Air ñëpp génn kon dañuy sant yàlla bu baax a baax mag ñi togg si biir kër gi nañu téye kurus yu ñaan jigéen ñi ñaan incha allah xale yaa ngi ñaan ñëpp accompagné nuyu Moussa dem daan ñibbisi yéen a ngi dégg na xale yi naan Moussa dina ko rey incha allah Moussa dina ko rey. accompagne municipal bi mooy moyen logistique jàppale leen si kaar yi ba ñu dem jël mobilisation bi wutal leen ay tiset jël enveloppe jox leen jàpp si lek gi ak naan gi ba xalé yi buñu démé au stade vraiment ñu mën fa nek nek bu rafet quoi lolu waraam mooy kii bi quoi. donc on est confiant comme ni ko xale yi di waxee dina ko ray doom. non incha allah dina ko rey parce que Garga amul chance Garga est mal tombé Moussa sera le vainqueur inshallah au soir du 28. sang yarax si sama deret yarax nee naa man maay soldaaru yarax tey ambassadeuru yarax la drapeau yarax lay sol drapeau yarax laay tiitoro drapeau yarax laay doxee drapeau yarax laay waxee lépp lu ma yëkkati si turu yarax la man yarax ma ñor bu yarax ma tekki sama ngemb dem defi leneen lépp lu may dugg te yarax d'accordul damay bàyyi lii waaye yarax ñoo ko liggéey yor seen doom mu yor ko si pépinière moom màgg tey ba ñuy wax Moussa Ndoye di ñaan yàlla yàlla la parce que dañ maa yónni yàkkamti ma te liñ ma yónnee yàkkamti ma mooy roi des arènes. liñ la yónni dañ laa yónni. dañ laa yónni yàkkamti la te liñ la yónni yaakaar naa dimanche le 28 ci lañ la yónni sa digganteeg Garga Mbossé Garga Mbossé mi nga xam ne tëkkoonte ngeen fu ne dem nga ba sax jàppee ko ragal ah. yàlla def nag léegi nga lekk avance am mu lekk sa avance dimanche waaw waaw man li ma wax rek man moom dama ne képp ku may bëreel doo ma ñeme mënu ma ñeme foo teg loolu waaw si si sama gis-gis la rek nit ki da ngay gëm sa bopp man gëm suma bopp moo tax ma wax loolu Garga Mbossé mi ragal nga jappé non japp du ragal mais dama ni doma ma mais lan lañuy ragal ci yow lan. ah yaa xam man damay bëre. ah damay bëre motax man damay bëre kat. ana daa am loo àndal lu bokku lek bëre. non damay bëre bëre ci walu bëre la lay wax. amul deug deug waaw si bëre lay wax. ok waaw ci bëre. du la ñemee dedet man damay bëre motax tax. kon Garga Mbossé ñemewu la. ci bëre bi ñemewu ma de. ci lan la ñeme wa ci lan la ñeme. ci wax la ma ñeme mais ci jëf duma ma da ngaa jël Garga Mbossé ñëpp ne la am nga adversaire de taille wutale ko ak mbër yi nga mujjee bëre ku ci mel ni Lac waaw parce que moom dem na ba àgg ci moom koo daan te moom daf koo jàpp tax waaw loolu loolu loolu moom la concerné rek man moom mbër su ma la daanee pare su ma xarit nga doon mbëri ma bëre la pare yëpp samay waaw moom waaw loolu moom loolu du si tontu xam man boobu man ne booy waxaat ko dama ko daan ba lu ñaaw déedéet man du daan ba pare sama xarit ngay doon mbëri ma bëri lépp seen numéro ngi mais wax ju bëri ji mu jàpp ne yow sa wax daa bëri parce que nee na daaw ba ren wala daaw jéeg ba ren fu ñu la tourné fu ñu la dékkee micro nga moom wax yëngum gi yaraax sax dugg nga ci ne na yow bi muy ñëw yaraax boobu doo kalaasam te dafa gëm ne tey doo kalaasam xëy na nag làmb ñëw na ngeen a la moom mu dugg ci làmb mu dugg ci làmb ba dab sant yàlla kon moom man wax ji yaakaar naa c'est la troisième fois ma toog xaw ma quatrième fois ma toog di wax sama combat moom moom yu tey Malick Lamine yóbbu na ko télé waxloo ko mu wax ba jeex. lu mu wax te tontuwuma ko. lan la wax. a ah li mu wax nee na lan ana balaa sa ko booleeg man. waaw loolu la wax. yow da ko koo gëm. déedéet na ko dëggal. lu tax li mu wax kay na ko dëggal rek. moom nga jàpp ne sax da lay néewal doole. waaw loolu àgguñ fa daaw la yàlla rek am doole. non ci bëre doo néewal doole ci bëre lay wax. non déggoo li ma la wax garga ñaar laa ko nawloo. muy li muy doon nit ma doon nit. limu mu doon taalibe Serigne Babacar si mo doon taalibe Serigne Babacar si mais lenen lu jëm ci côté beure nawlo mako si mako dakk lu mu bëgg rek mako dakk nawlo wo côté lek te lekk avance am. waaw nawloo si beure parce que mako dakk beure bëre. Moussa Ndoye foo ne yow da nga ma sa beure gàllankoor man may ndaanaanu ndanan yi déggoo kep du ndanan ma sa ndanan ba ngeen déglu di nuy yarax bu baax di nuy suma bay di ñaanal suma bay yalla na yeesal yermande si kawam di nuy suñu xalif general xalifa ndoy yalla nako yalla lafal cat mais yéen bu ngeen xeexee nag boobu bëri nga te garga gis nañ mu dóor fi ay mbër sax ñu dem doon quatre personnes ñu daanu wax nga dëgg Lamine waaw comme dóor na quatre personnes ñu daanu moom loolu moom la concerné ah yow mi it concerné ndax da ngeen di bëri non concerné wu moom parce que man loolu xalaatuma ko sax sama sama moom xalaatuma yooyu man dina ko sama bopp li ma war mooy le 28 le bu arbitre sifflé li war rek laay def li ma bëgg d rek laay def dóor mu daanu am na ñu la jox favori. non man duma favori. non am na ay techniciens yu ko wax. parce que yaa nga nekk ci dynamique de victoire. waaw dynamique de victoire dara. ñuy ñëpp nag. waaw ñuy Habib bi fi ñëwoon léegi maa ngi koy baax a baax ak seen ak ak magam. maire sama yaay yi nga xam ne mooy groupe Ndaw Rabine bi ñoom ñëpp. ban Habib ngay nuyu yow yi daa bari de ban Habib. waaw Habib l'écran ah. waaw Habib l'écran lu ngeen seq. Habib suma doomu nday la. suma lépp la suma xarit la suma lépp la. ci combat a lépp laa préparé combat bi lépp laa préparé lan moo la ci gën bu ñëw baax na man awma lu may bañ nonga daara rek laa lu ñëw baax na combat bi mën naa yàgg ah mbiru yàlla bu yàgg bëggee mu yàgg mu yàgg bëggee mu yéex mu yéex mu gaaw mu gaaw mu gaaw ñaar yëpp entraînement ñaar yëpp ma dégg la sax nga tudd fi ay mbër ay kàddu gi ay su lay doob mu mel ni da ngay woote wala wala ñooñu ñëpp ñoo nekk sama ginnaaw ndax ñëpp yaraax la ñuy ngémboo ñoo ñooñu ñëpp ñoo nekk sama ginnaaw mais ba garga parcelle la dëkk de. waa parcelle d' accord amul benn problème di di wax ni tey li ma sol Jibi Diouf moo ma ko jox di rakk si Ngouda Sarr. lan lii nii Ali jox li des lépp. alija di sama xarit di lepp mom ko jox ah. waaw alija ak Jibi Diouf tay ñoma décorer mais sa digënté ak parcelle parce que dañ fi dégon ay jamono nga xëj fi relation ak wa parcelle tay ñu xëy xëy gis nga lek avance wa parcelle da nga juk ci la nga nekkon wala sëñ bi bayiko mu wax ci li côté bobu côté bobu côté parcelle man duma ci si wax garga parcelle la dëkk waaw mom parcelle la dëkk man yarax la dëkk légui da ngay bëre ak mari parcelle man damay jëlé sama roi des arènes ñu indi ko biir fi ci biir yarax mais sa relation waa parcelle. relation relation la mais dama ni ci côté parcelle du ma si wax. parce que man dama laa fekk ci néeg lamit mi mooy seere. waaw Modou Lo toog. Yékini Senior toog. may wax seen combat gars yi ne bàyyil noonu far nag nga ñëw jël koo xam ne moom Modou ñoo bokkoon benn néeg muy garga. amul benn poroblème lu ne am na fi li si kanam raw li bët nan dem ba si kanam rek le 28 di leer. Ah. lu nëbbu woon dina feeñ le lu nëbbu woon lan moo nëbbu. dara nëbbuwul mais nañ dem rek yàlla baax na waaw. kon la nga waxoon ne roi des arènes bu nekkee ci Papa Sow sax nga bàyyi ko da nga caa jóg li ma wax dafa leer dama ne roi des arènes. waaw fu mu nekk dinaa ko jëli indi ko yarax. bu nekkee parcelle. fu mu nekk dinaa ko jëli indi ko yarax. kon Moussa da ngaa mel soppi ngay wax de soppi nga waxin de. dama wax muy tugu déglu li la wax bu fu roi des arènes nekk dinaa ko jël indi ko di wax di wax carrément parce que lamba non Iba Mar man ma fa du ma bëri Iba Mar mais situation obligée fa laa war a bëri mais arène nationale dama ko param pour feesal ko. ah arène bi dama ko pour feesal ko. waaw léegi wooteel te nga xool caméra yi di woo ñëpp suma entraîneur ñëpp maa ngi woo ñëpp techniciens yi fi nekk yëpp maa ngi nuyu di leen sant. waaw di nuyu Babacar Mbengue bu baax a baax Fatou Diouf Awa Niang Ali Dia ñoom ñëpp maa ngi nuyu Pape Diouf Ndongo Faye ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn ku si ne maa ngi sant di la gërëm. Ousmane maa sant di la gërëm di wax waa Bassoul waa Bassar bàyyiwuma kenn di wax ni Linguère Gaye Linguère ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Wali Ndiaye si Guèye daba daba baabu maa ngi koy woo di woo Aïda Mbaye di woo Khady Niang di woo Jibi Jibi Diaw di woo yaa Fatou Gaye Ndoye Fatou Gaye Ndoye ñoom ñëpp maa woo si combat bi di woo ñi nga xam ne ñoo fi nekk euh, tey jii waa Maris maa ngi woo ñëpp waa Dalifor maa ngi woo ñëpp waa baasul maa ngi woo ñëpp Fama Gaye suma xarit maa ngi koy woo waa Joal ñoom ñëpp maa leen woo di woo sama yaay yi nga xam ne ñoom ñooy mairie ndaw Rabini ku si nekk maa ngi lay woo di woo waa Caaray ak fukki penc ak ñaar yëpp bàyyi ma kenn Cheikh Tidiane yal na la yàlla fay Mamboy Kane sama xarit nga Cheikh Tidiane Sall fula yal na yàlla defal la cat yaa ñoom Seeku Ndour yaa ñëpp yal na yàlla jàppale Moustapha Diaw Moussa jox ne loola ma laaj moo la Moussa wala wala yi na ñëpp ñëw Moussa lébu yi na ñëpp ñëw Moussa loolu ma wax naa ko toog Moussa dégg na ko ma laaj la laaj la c'est que dafa bëgg lii mooy dernier sama laaj quoi ak yow maanaam dama seetlu keroog bi ngeen ñëwee stade kaala gu weex la garga yor takk ko ci boppam yow nga yor sa kaala gu weex tëkk takk ko ci sa baat secret kaala gu weex gi ci bopp beeg gi ci baat bi lan mooy problème bi kaala gi ci bopp bi gu garga gu weex yow sa gos sëñ bi Moussa doonu bàyyi xel tuuti wala dama ne kaala gu weex gi nga yor ci sa baat moom mu yor ko ci boppam lu xew ci secret kaala yi waaw kaala gi mu sama papa ma ko jox rek waaw sama baay ma ko jox muy sama papa Ngóone Nguura Sarr moo ma ko jox di wax ni caatu yaraax gis naa la mos jàmbaar suma rak gis naa la bu lo soddu Pape Diop ak mbër yi nga xam ne ñoo nekk si yaraax yooyu ñaax bàyyiwuma kenn ñoo ñëpp gis naa leen jërë nga jëf nokk yaa suma xarit yéen ñëpp gis naa leen yaraax mun jon nee naa la préparel yëngal ci kaw ma yëngal ci suuf bàyyiwuma kenn ci suuf du ma bàyyi dara